convergence des jeunes républicaines di ko COJER bu commune bu Touba def nañ jëf ji nga xam ne at mu jot bi ñuy waajal màggal Touba gi dañ ko daan def mu yëkkati ndimbal gu takk lool dem jëbbal ko yenn ci bërëbu fajukaay yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bu sell bi di Touba ngir jàppale leen ci liggéey bu mag bi nga xam ne moom la ñuy amal ci màggal gi liggéey boobu nag ko COJER bu Touba ñu ngi ko tàmbalee ci centre de santé Serigne Saliou Mbacké nekkee ci 28 jébbal leen jumtukaay yu bëri yoo xam ne danañ ko yittewoo waa COJER communal de Touba ànd kook euh, le coordonnateur Modou Sall tënku ci kuréel gu ñu naan COJER nekk ci parti APR jëloon seen i moyens lu ci mel ni des produits détergents euh, indi fii lu mel ni ndox ay sachet ngir jébbal leen ko muy suñ contribution ci li nga xam ni mooy mooy màggal gi ñu am mbégte contentement bu baax nag ñëw seet si waa parce que ñoom it seen taxawaay au niveau de la commune kenn nattalewu ko ñu ngi liggéey liggéey bu am solo kon bu moment yu mel nii jotee dañ leen a war a gestu jël suñuy dërëm ak suñuy ñaar dërëm nu mu mënti toll ñëw ànd ak ñoom li nga xam ne mooy safar gi te sëriñ bi dong tax. ñoom ndawi COJER yu Touba yi di sant bu baax a baax mboolem responsable yi nga xam ne ñoo nekkee ci dëkk bi ndax ñoo leen jàppale bañ mën a jëf jëf jilee ci kaw loolu nag ñu ngi collaboré ak ku ci mel ni lu ministre conseil Cheikh Abdou moo ñu jàppale moo ñu dooleel. ci mel ni aussi madame la DAGE soxna Ami Mbacke ñu ngi koy remercier moom it gis nañ taxawaayam au niveau de la jeunesse républicaine mais également l'honorable Mor Gueye aussi bàyyiwuñu ginnaaw benn benn yoon kon tey bu ndaw ñi amee fit bay def ak sociale yu mel nii c'est grâce aux leaders qui sont dans la commune ñoom parce que wolof Njaay dafay wax ni fecc liir bu neexee ndey jaa jàpp ca wagg ya kon encore une fois de plus lii ab collectif la ñu koy def nag au nom de toute la jeunesse de Touba. ñu ngi sant ku mel ne Cheikh Abdou Lahad Mbacké Gaïndé Fatma ministre conseil wax dëgg yàlla am jàmbaar la gis nañ taxawaayam ci côté jeunesse Touba bi yëpp nag laay wax di sant soxna Ami Mbacké Dash ku ne gis na ko ak honorable Mor Gueye dama joxe seen tur ñoom kese ngir ñu ñu présenté tur leader yi département bi ñëpp mais bépp leader bu nekk ci département bi gis nañ taxawaay bi nga taxaw ci COJER. kilifa yi nga xam ne ñoo yor wàllum paj gi ci poste de santé bi santaat nañ bu baax a baax waa COJER rafetlu seenub taxawaay rawatina jëf yi nga xam ne saa su ne ñu ngi koy jëf. Euh, ñu ngi leen di gërëm it au nom du médecin chef euh, docteur du Fatou Diouf mu nga xam ne mooy médecin chef euh, bu centre de santé Serigne Saliou. Euh, dafa xaw a jàpp euh, xam nga ne contexte màggal bi fi mu ne nii ak les la là dafa xaw a kii nii mais moo tax néanmoins mu envoyé major Djibi Gueye ak madame Diop infirmière d'état pour que ñu ñëw teewaat sa ko fi pour wone ne pour magnifier rek euh, geste bi je crois que lii du day du tey rek aussi ça devient maintenant une collaboration vraiment hmm, durable ah parce que du COJER rek du COJER du tey rek lafi fi mos a ñëw jàppale ji bi ma ko ko rendre kon dafa ne ah ñoom de lu ñu defoon daaw defaat ko ren yàlla nañu ko fekk waat ay déwéni déwén donc loolu ça on magnifie ça à juste valeur donc euh, vraiment on remercie tout le monde di leen gërëm euh, ab centre de santé ku koy jàppale si wàllum ndox euh, ci ci ci pendant le màggal yaa ngi koy dimbale yaa ngi koy jàppale hmm, yaa ngi koy jàppale Euh, kon nag à travers vous ñu ngi remercier au nom du médecin chef et du major et ak docteur ak ak coordonnateur Modou Sall Modou Sall il m'a téléphoné sax. Mhm. c'est mon frère nami mon ami. Bac Sock semon nami frère mhm, mhm. alors euh, kon maa ngi leen di gërëm bu baax a baax a baax baax au nom du centre de santé. Euh, liggéey bi bu bëri mais sinon ñëpp waroon na mun a jàpp ñëw ñëw photo photo de famille pour woon leen ne li ngay def nii lu ñu yëg la. donc à travers vous aussi ñu ngi remercier le ministre conseiller. ginnaaw poste de santé bu 28 cogère communal bu Touba dem nañu ci district sanitaire bu Touba ñu gën ko ràññee ci hôpital jéemul ñoom it jébbal leen lim bu takk lool ci ay jumtukaay yoo xamante nii dañ leen koy jàppale ci liggéey bi nga xam ne ñu koy amal ci màggal Touba gi rawatina malade yi nga xam ne dañ leen fay taxawu. cogère Touba moo jóg doon def caravanam doon jël ay aidam doon ko yóbbu ci hôpital yi euh, avec le coordinateur Modou Sall. lii nag suñ koy def dañ koy def en tant que ay ndaw yoo xam bi ne ci dëkk bi la ñu dëkk en tant que ay ndaw yoo xam bi ne ay taalibe Serigne Touba lañ en tant que ay ndaw yoo xam bi ne ñu ngi jàppale son excellence le président Macky Sall te nekk ci instructeur convergence des jeunes républicains euh, ci turu suñu coordinateur national Moussa Sow kon lu mel ni suñ koy def day baax nit ñi xam ñun fan lañ teg suñu tànk ay taalu beleen di ay doomi dëkk bi màggal Touba jub si na ñi nga xam bi dëkkuñu Touba sax ña ngay jël seeni moyens ko ci dëkk bi ñun ñi dëkk Touba suñu defee lii wàcc nañ ànd ak membre yu COJER yëpp ànd ak suñu coordinateur jël suñu moyen la ñu mën ak la ñu mënul yëpp boole nañ ko ngir yóbbu ko ci district sanitaire tey ñu ngi ci centre de santé jéemul tey boo xoolee tey indi nañ fi ay xéewal fekk nañ fi itam équipement boo xam bi ne teeru nañ ñu dalal nañ ñu comme niñ ko doon waxee ci départ ba rek lii dañ ko yàgg di ko def chaque année yàlla day dogal bu màggal Touba jub see ba même su dikkul sax mais bu fekkee suñu diggante ak ak hôpital la chaque bu jutee dañuy jël ay moyens di ko fi indi mooy yooyu nag dañuy sant ñi nga xamante bi ni ñoo ñuy jàppale ndax ñun ay jeunes républicains lañ xëy na amuñu budget amuñ yenn mooy mais li suñ ko defee ba toll fi am nañ ñu ñu jàppale. district sanitaire bu Touba ci turu docteur ndey Maguette Dieng mi nga xamante ni mooy médecin chef bi sant nañ bu baax a baax COJER bu Touba seen taxawaay rawatina ñoom ñi nga xam ne ay ndaw lañ saa su ne ñu jóg di jëf ci wàllum social ak saa yu ñuy waaj màggal gi ñu xam ne ñoom ñii war nañ cee am taxawaay bu am solo. Euh, ku wax màggal wax mbooloo wax euh, ay nit dajale ay nit. Euh, donc euh, appuis bi ngeen ñu indil tey mooy seen barkeelu bi doon na loo xamante ni lu ñu considere la parce que javel bi ngeen indi ak madaad produit yi nga xamante ni moom la ñu gën a soxla si màggal gi vu le contexte actuel parce que ku kenn réeréwul mbir que ni contexte bi fi mu nekk nii mooy contexte Covid donc cet la ñu wax set la ñu wax lavage des mains euh, donc loolu moom mooy li nga xamante ni moom la waa kër waa kër docteur santaane donc bu ngeen jëfandikoo ci li waa kër docteur santaane ngeen indil ñu produit yi donc du ñu def lu dul di leen remercier di leen santaat bu baax médecin chef de district bi moo leen waroon a teeru mais tey dafa fekk mu am réunion elle est mais mi ngi jottali nuyoom bu baax ak cantam di leen euh, xamal ni aussi tamit yëg na am na yëg-yëg bu baax ci acte bi ngeen def muy acte républicain donc mu ngi leen ci sant di leen remercier bu baax di leen ñaanal yàlla ay ndaw ngeen comme ni ngeen ko waxee mais yéen a ngi teg seen tànk fu baax teg tànk fi nga xamante ne mooy jëmale réew mi kanam teg seen tànk fi nga xamante ne aussi tamit mooy jëmale santé kanam donc euh, santé bi moom ku siy liggéey rek euh, yaa ngi jàpp ci euh, liggéeyu dëkk bi donc ñu ngi leen renouveler encore suñuy remerciement di leen ñaanal yàlla màggalu jàmm ak salaam di leen ñaanal yàlla aussi tamit lépp lu ngeen def nii suñ borom ful ko te borom màggal gi incha allah fayal leen boppam. jëf ji nag lenn rek la ci li nga xam ne moom la ndaw yi nga xam ne dañoo nekk ci cogère communal bu Touba di def ci màggal gi ndax am na yeneen i action yu bëree bëri yoo xam ne ñu ngi koy amal ci dëkk bi lépp rek jëm ci jàppale taalibe yi màggal si waaye santale Cheikh Amadou Bamba yàlla suñu borom ci bisam bu màgg bi